Podor la waxee li mu wax ne fonctionnaire ya fa nekk maanaam jaraafu nguur yéen fa yónni nekkaluñ fa askan wi euh, ba tax dañ ko woowoon ci kanamu àttekat bi wala enquêteurs yi te dafa nar a delluwaat bàyyi genre bàyyi ndégandiku laa ko mën tëddee jamono ji Boubacar Seye moom caabi féete na ko ginnaaw te jàpp nga sànq ni ngay wax noonu ne lu graaw la ci wàllu liberté publique donte dinañ ko yaatal ak ni ñuy wax loi bi ngeen voté bu ma ne bi ngeen voté député assemblée nationale ca nga bokk donte voté woo ko am nga ci am nga ci am nga ci yoo xam ni daal neexu la ci d'accord ci àndoo ci te ci liberté publique it nga ko teg ñu dikk si ci jamono ji liberté publique eh, niñ ko laajee ci eh, titre bi ndax on en danger. non der du nekk xam nga ma defe naa fokk nu xam fi nuy waxe hmm. eh, parce que bu dul loolu du nu bokk niveau. Hmm. sa y a plus de liberté publique nga naan est nekkul en danger waaw ah. ah, kay loolooy différence bi liberté bi amatul mi ngi mel ni Sénégal buñ ne waaw lii kay moom nun daal ci kàmb gi la jëm hmm. kon yow yeggagoo ci kàmb gi alors que yaa ngi ci biir kàmb gi problème bi mooy naka ngay ñett-ñette pour génn ci kàmb gi man foofu lay waxee hmm. ou alors ou alors wala boog amuñu benn ambition wala boog amuñu be bëggaluñu suñu bopp dara suñu bëggaloon suñu bopp dara dinañ xam ne nekkuñu di jëm ci kàmb gi dañuy xam ne noo ngi ci biir kàmb gi xam nga président de la république dafa toog mais 31 décembre yàggut ñi judd barki démb fekke nañ ko <coughs> nee na affaire yi il faut ngeen xam nag ni muy doxee kooku ñu wax ne dafa jalgati nangam nangam non du ñëpp lañ mën a lañ mën a teg loi moo ko wax ñépp dégg nee na sénégalais yi du ñëpp la ñu mën a teg loi moo ko wala déet moo ko wax de kon nag état de droit toxu na ñu ne déetewaay ñu ne yorin yorin gestion mhm. gouvernance mhm. 2012 31 décembre discours président de la république gouvernance man naa ne moo ëpp ci li mu wax ci discours 2012 2020 décembre discours bi amul benn yoon le mot gouvernance yorin baat boobu feeñu ci benn yoon ba ñu ko laajee dane rapport yi kat def leen ndànk man la koy yot maay seet ni ma koy doxale dégg nga wax bi kon bu ko neexee mu jàllale ne tëj leen bu ko neexee comme ni mu ko waxee mu teg ci concom concom waaw mais léegi loolu xam ngeen ko gis ngeen ko ngeen ñu bëgg a fenetal ak a jëllale mm-hmm. y a plus droit nee naa Macky Sall mooy état mooy aussi loi waaw parce que loi bi mooy seet ki loi bi war a dal ak non kii loi waru koo dal parce que nangam nangam mais su ko loi mënta dal kon ka changer loi ba bokk kon far waaye non dañ koy fi bàyyi loi yi bu buuba ñëwee mu dal ko bu jaw ñëwee du ko dal bu pap kii ñëwee mu dal ko bu non c'est pas possible alors euh, xam nga man li may wax dama ko dundee mm-hmm. constitution préambule mm-hmm. mooy wax ci liberté Macky Sall nee na kenn mënta manifester boo manifester bu ngeen dee téeméeri junni nit manifestation bi ñu autoriser ko nit ñi dinañ def seen marche wala seen meeting ba jan somu tas ci ñibbi dàllu kenn du dagg su ne tere nañ ko même bu dee fukki nit a fa dase gaz lacrymogène yi tàkk jàppal bàyyi mais moom xëy na looloo ko ci neex donc mais ce pays là Sénégal kenn mënu ko yore noonu man jàpp nañ ma ñetti yoon ci marche jàpp nañ ma ñetti yoon ci marche jamonoy jamonoy. jamono Macky Sall gi nii <laughs> waxuma Senghor de waxuma Abdou Diouf. mais yàggoo fa de. non jàpp yóbbu police nga fanaan nga fanaan ba fajar mais da dadul yoon. man dugal nañ ma gris gris gris man mii fanaan naa gris xam nga loolu rafetul. rafetul mais nag euh, Sénégal da nga koy yore xel too ko yore doole soo ko bëggee yore doole rek da ngay am jafe-jafe mm-hmm. te man fii ñu toll tembe loolu la xoolal le sëy mm-hmm. tëj kaso ñoom ñoo waroon a jëkk jiitu ci mm-hmm. mais man li ma war a def duma xaar bañ di ma ko wax waaye yow la nga war a defoo ko la nga war a def defoo ko keneen di ko wax nga ne ko kaay ma tëj la ci kaso bi hmm. euh, ki ñu professeur bi jàngale Podor naka noonu cest à yàlla sunu borom ci boppam xam nga moom mooñ doomu aadama yi moo bindu doomu aadama mais ni mu leen mooñe mooy su ma neexee man ma ne waa man daal bu ma doon yàlla nangam nangam am déet hmm. waaye nag yow nga ne yow doomu aadama nga waaye yow li ngay def kenn waru ko waru cee wax dara te ñi far ak yow ànd ak yow man de depuis 2012 dégg ma ñu ne tel responsable à quelque niveau que mm-hmm. ce soit de la l'APR bu yor gestion mm-hmm. yoon dal na ci kawam mm-hmm. kon mën naa ne nu corruption bi mënoon a toll ci jamonoy Abdoulaye Wade bi Macky ñëwee la corruption a complètement disparu dans le pays corruption zéro parce que mosuñoo <laughs> yóbbu kenn ci yoon ci kaw dafa corruption dafa yàq lii dafa yàq lee alors ça lu ciy pexe li ciy pexe en tout cas ci man ni ma ko gisee mooy nit ñi taxaw jàkkaarloo ak li fi ne mhm. effectivement pour que mu changer liberté publique amatul ni mu wax non mais man j'ai j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour euh, le doyen Mamadou Diop Decroix parce que pour la carrière. wolof politique bi nga xam ne moom la def. Mhm, jaar jaaram. Mhm. jaar jaaram ci politique. am jamono joo xam ne am parti ci réew mi dañ koy tere parti uni ko fi nekk. Mhm. moom mu bokkoon ci ñi nga xam ne ak ñenn ñoo xam ne ñi ngi ànd ak tey la majorité politique ak ñeneen ñu nekk ci leneen ñu doon résister moi mon propre père faisait partie de cette dynamique là donc j'ai beaucoup de respect pour ñoom. Euh, parce que sama héritage ak sama ADN politique aussi loolu daf ci bokk mais jamono dafa dox règle politique aussi évoluer ñu nekk jamonoy réseaux sociaux yi sénégalais doon une démocratie d'opinion accomplie c'est-à-dire démocratie d'opinion bi Sénégal doon Afrique daf ci teg bët addina bi teg ci bët ci ni ñuy doxale ñun suñu biir réew fii bët bu set nit malal mi su ko neexee xëy li mu xalaat ci président mu wax ko li mu ko ci xalaat yëpp ba parfois même ñenn ñi ñu déraper on a des problèmes peut-être parfois de contrôle de cette liberté la donc mënuñu fexe muus ba mun a gëmal sénégalais yi ne Sénégal dañu nekk dans une dictature ou dañu nekk ci benn réew moo xam ne kenn sañatul marche kenn sañatul. mais li mu wax gënul woon yomb nga baal ma ma ma ma bu ngeen leeraloon li sëy doon wax. du ñu jàll ci leneen mu bañ nekk. waaw waaw d' abord. dinaa tontu ci loolu nga wax noonu. peut être pourquoi pas. Mm-hmm. ça peut être une opinion. Mm-hmm. mais loolu tamit du question de fond. li ñu war a wax kay. mooy su nee d' abord su nee d' abord. Mm-hmm. président ci discours am waxul gouvernance si wax na ci encore une fois. wax na ci ba fàtte les les rapports sont réguliers il des gestionnaires yoo xam ne ils sont actuellement en exercice yu ñu épinglé ñi ngi remboursé il l'a dit dégg nga ko si il a parlé de gouvernance et il n'a jamais arrêté de parler de gouvernance mais les questions de gouvernance et de transparence on ne décrète pas en 24 heures c'est un processus moo mooy yeggale ci benn niveau boo xam ne peut-être c'est un niveau idéal mais encore que amul réew booy jël sur les questions de gouvernance où il y a pas des questions de corruption il y a pas des questions de transparence et de redevabilité day am mais ñun nous sommes dans une voie te instruments yi natt nag yow da nga far da nga féete man ma féete fii mun nañ am suñu opinion nationale mu am des clivages mais am na ay instruments yuy nattu gouvernance ci àddina bi ñooñu lañ mun a déglu mun naa ci joxe ñett démocratie rank la fondation Mo Ibrahim ak Transparency International sur l'indice de la perception de la corruption les pas yi ñu def de progression en qualité et en rang sous le régime de Macky Sall jamais le Sénégal ne l'a fait loolu mooy li texte yi wax ça si loolu loolu du loolu du man loolu du man du yow Mo Ibrahim on est entré dans le top 10 on était dans le top 20 ou le top 25 hmm. indice de perception de la corruption nous sommes toujours en zone rouge hmm. c'est vrai mais la marge de progression ñu def depuis que le président Sall est là. Et mais on l'a jamais eu déet sëñ bi déglu rek. Mhm. ça veut pas dire qu'on doit être minimaliste et dire que tout est bien waxuñu loolu. mais c'est des questions yoo xam ne ça doit pas être politisé parce qu'on manque de programme politique. c'est des questions yoo xam ne liberté d'expression bi dañ ko ciy jël la place des femmes dans la gestion la parité euh, l'accès au foncier des femmes dafa bëri ay critères yu ñuy jël. yoo xam ne mooy montré Sénégal sur les principes de bonne gouvernance et de transparence yoon bi mu jël mais gëwma man très sincèrement que le Sénégal dafa am problème mu liberté le Sénégal au contraire à chaque jour démontré et pas simplement parce que c'est le régime du président Macky Sall qui est en place mais parce que nous avons une société civile dynamique regardez comment tout à l'heure sur ce plateau parce que am nañ une liberté d'expression irréprochable des journalistes et des observateurs ont critiqué la politique publique en matière de Covid-19 fii la mën a am dafal nag déglul rek loolu fii la mën a am mënul am à côté chez nous sur le continent yénim ci affaire le continent ah. lu am na réew yu mu fa mënta am ça c'est le legs des pères c'est fondateurs politiques qui font que ñun suñu démocratie waruñu natt suñu bopp ci ñooñu désolé déedéet war nañu ma bëgg a wax waxuma ñu natt suñu bopp ci waaw <laughs> li ma bëgg wax wax ma ñu natt suñu bopp vers le bas dama bëgg ne ñu xam suñu bopp suñu xamee suñu bopp dinañ xam li ñu war a sàmm ak fi ñu war a yóbbu débat politique bi parce que bu ko gëmal ñun suñu génération moi j'ai des amis qui sont à Y'en a marre il y a beaucoup d'amis dans le club ah des amis à Pastef Sonko ñoo bokkoon koñ on a grandi ensemble donc on connaît les vrais sujets le sujet n'est pas une question de liberté parce que fii kenn mënul imposer sénégalais yi dara da nga wax am programme politique le président Macky Sall agir de façon révolutionnaire transformer les vies la vie des Sénégalais sur certains aspects transformer la cartographie des infrastructures du pays comme vous l'avez jamais fait et les dama daana rek ba yem foofu loolu moo tax en 2019 quand il s'est agi d'aller aux urnes urnes yi nga xam ne journalistes yi dañ koy wër observateurs internationaux yi wër ko sénégalais yi jël seeni xob sànni ne ñun kii lañ tànn donc loolu c'est une expression démocratique qu'il faut accepter ça ne c'est pas simplement les élections c'est aussi beaucoup d'autres choses mm. mais li ma ci bëggoon wax pour daaneel ci mettre sëy sur sëy ak euh, Tall Tall li mu wax dafa ne chef de service yi nekk foofu nekk luñ fa lu seen bopp di dugal xaalisu réew mi di def seen poche kii dafa ne jël nañ téeméeri milliards ak lu topp jox ko Sénégal ci wàllu mbëkk mi waaye xaalis ba état bi da ko luubal ci li ma dégg justice nag su mbir mi nekkee ci loxoy yoon normalement sax wax ji waru cee bëri waaye ci li ma dégg. Mhm. ñun ñëpp ñu dégg ko mooy dañ ko woo pour laaj ko loolu mu wax fan la xaalis boobu dugg ak kan moo ko jël. loolu de laa jàpp ne loolu la su dul loolu li ñu tamit ñu wax ma ne du loolu rek waaye man loolu laa dégg. allez bismillah yéen d'abord euh, ci démocratie. Mhm. activiste kenn du ko jël di ko tëj kaso. loolu moo amul sens c'est-à-dire muy sëy muy buy ah. maree saaña